mooy Serigne Sidi Moukhtar mi nga xam ne moo nekkoon Serigne Karim Wade moom tim bokk na si ñi nga xam ne tax nañu Karim Wade si ñaan ndax Serigne bi waxoon na ko na ko maa la dig nala la di nga nekk njiitu réewum Sénégal moom Cheikh Dieng ci journal bi yàkk na musiba ak mbelengana nguur ak Macky Sall gi nee na réew yi nga xam ne ay réew wayu la ña béye boo ngeen boole ci Sénégal Sénégal état wayu la njiitu mi di président Macky Sall jamono ji nag lépp lu mu mën a ngir nag néewal doole opposition bi Macky Sall ma sa ma ngi ciy xëy ma ngi ciy gonto ma ngi ronqi maire yi nga xam ne ñoo ngi ci ku jege ndax gën gaa yées lu toll si juróom ci ay maire ñoo xam ne fekkee nañ Macky Sall journal bi di laas nee na ca diwaanu Tamba maire bu Bala di Amadou Ba nekkoon ci yeewi ma nga ca Macky Kaba maire bu Kotiari ma nga sa la Sall Bamba Fall gëm sa bopp fekki na Macky Sall Abdou Aziz maire bu Wakaam fekki na Macky Sall Malick Fall maire bu Diourbel fekki na Macky Sall Dambé maire bu Diabel fekki na Macky Sall Aïda Mbodj ñu xëy fekk ko ci journal bi yàq na musiba ak mbelengaan Macky Sall daan nay ñaawlu bu a baax doxalinu Macky Sall ndax nee a jëm ci wàllum politique njiitu réew mi di Macky Sall bi de la Tribune nee na yëngal na bu baax a baax coalition Yewwi Askan Wi Walf Fadjri yéenekaay nee na élection législative yi nga xam ne moom la ñu dëgmal Macky Sall ay maletu xaalis la Macky Sall yor di jaaba jonge ak moom maanaam moom lay doxantoo élection législative yi élection député yi ngir nag Macky gagné nga xam ne moom la ñu dëgmal mbetteel mën na cee bëri loola journal bi di bés bi nee na Guy opposition bi ku ji gi maanaam wax lu dul dëgg ci la ñu yëngoo yéen a kaay la turbine ñu xëy fekk fa Bougane Gueye Dany moom tim yàkk na musiba ak mbelengana Macky Sall ak ñi mu àndal nee na ñii ñaari mbir daal fës na lool ci seenu doxina ba sa mooy lu jëm ci wàllum guerre wàllum corruption wàllum mbuxuma ak lu jëm ci wàllum méchanceté maanaam wàllum soxor yéen a kaay gi di Vox Populi ak l'Observateur ñoom ñu xëy diñu xibaar nan ñu jamono ji dem bi ak dikk bi ci jaww ji dina gàllankooro gën gaa lu toll ci fukki fan ak juróom suñu moy tuulee la ko waral bokk na si kérosène gi nga xam ne mooy carburant bi ñuy sol ci roppalaan gi loolee la ñu wax ne maanaam amul ci Sénégal te bala muy am ci réew mi danañu toog lu toll si ñaari ay bés maanaam fukki fan ak juróoma enquête yéen a nee na kaawu dëggantaan moo am ci dem bi ak dikk bi ci diwaanu jaww ji docteur Xaali Ñaa nee na lii catastrophe munu koo weesoo yéen a gi di alerte ñu xëy fekk fa économiste bi di may sa baabo nee na nag jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy wax ci lu jëm ci wàllum kérosène wàllum carburant bi lenn rek moo tax mu mën a am maanaam yorin wu bon woo xam ne yore nañu ko kër gii di AIBD les éco xëy di ñu xibaar naan ñu ci Ndakaaru jaaro boo muy tulee dina am ñoo xam ne dinañu am ay jafe-jafe ci lu jëm ci wàllum carburant ndax bëri na ay service Dakar yoo xam ne amatuñu carburant lu jëm ci wàllum wér-gi-yaram gi yëngu na alliance ànd gësam ñoom nag nee nañu jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy dund mënatuñoo wéy ak mooma moo tax nag yëkkati nañu seen ñeenteelu plan d'action yéene kaay gi de la turbine nee na Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xam ne moom lañ dénk wàllum wér-gi-yaram gi ci Sénégal est-ce que nag du Abdoulaye Diouf Sarr moom ci boppam moo tëlee Sénégal mooy réew moo xam ne nag li ñu fiy dégg ay giraawal yi ak ay libération mu njëkk ma ñu fekk fa Mariama Jéeme moom nag xëy di ñu nettali lu doy war doy war a ci atum 2020 24 na nii ci hôpital bu Ziguinchor ñeenti doomam yu ndaw yoo xam ne faatu nañu fa kenn par kenn la doon faatu ba ñoom ñeent ñëpp ñu jeex ci hôpital bu Ziguinchor moom Mariama Jéeme daal wax jafe-jafe yi nga xam ne dund na ko ci hôpital boobu nee na 9 suba la fa dem ba 19 heures amul kenn ko ko nee na nag maire bu Ziguinchor amuñu yërmande ñu ñàkk yërmande la ndax bi mu ñëwee di dund ay jafe-jafe ma au lieu ñu xettali ko maanaam assisté ko si seen téléphone yi la nekkoona école bu Sénégal war nañu ko xoolaata ndax violence bi nga xam ne moo ci am jamono ji jéggi na dayoo kuréel bii di COSYDEP ñoom nag def nañu ab enquête daan nañu koy génne ma ngi mel ne tulleeg màlle journal di Rewmi Quotidien ko waral étudiants nee nañu seeni bourse la ñu bëgg fa kooku mu daal di koy mottali ñàkku kaaraange gi am ci université boobee ñu daal di koy nag saafara loolee moo métti étudiants yi diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr ba léegi pënd ba wureeku la journal bi di Source A nee en tout cas li am ba de sala def nañ ay prélèvement ci soxna sii di Adji waaye tamit gis nañ li nga xam ne mooy sperme gaa yaa ngi koy wax waaye nag sperme boobu kan moo ko moom journal bi loolee la xëy di laaj nee na tamit ba léegi defaguñu test ADN journal bi di Source A nee maanaam mbànn yu su dee nag lu am la maanaam fan lañ ko denc